ci Touba Lansar léegi bu guddi jotee day leex nàññ li nag di liggéeyub Touba ca kanam jëm ci leeral dëkk bi trente bi nga xam ne moo bàyyeekoo corniche kër Serigne Mor Bousso Dieng ba Touba saar wala toll ci ñaari kilomètre yu teg lépp Touba ca kanam def ko ay làmp ba ci péncum sëriñ Bassirou saar jaamu sëriñ Touba bi liggéey bi nag mbooleem quartier bi bég nañu ci lool. lii mu def nag rëy na ci noonu lool lool lool lool lool suñu xol si dënd guy ci moom suñu xel itam dëgg la Lansar nit ñi xamoon nañ ko sax mais Touba ca kanam tax na wala nit ñi gën a xam Lansar parce que boo nee Lansar laa dëkk dañ leen laaj ndax naka seen naka seen hôpital Touba ca kanam bi loolu lañu ñuy njëkk laaj kon day mel ni Touba ca kanam gën naa yaatal euh, xamee xameelug lansaar gi waa ndax Touba ca kanam ñu bëri bu ñu bu ñu bu ñu bëggee bu ñu xamee lansaar fii ci Touba kanam lañ ko kiiwee waaw ñu sant nañu yàlla bu baax a baax lii ñu naan Lansar dafa danga daan génn sa di ragal du am foo jaar ñu dem ba lii ñëw na xam kon kawe na suñu njort nañ ci góorgóorlu bu baax a baax man ak samay morom ci sama bopp laa ko njëkkee xale yi su ma leen daan ñëw dañu naan dañoo ragal ñu dem ba ku nekk di dox ñoom kenn ko si yoon day ñëw kon alhamdulilah ñu sant suñu Tuubaa bu baax a baax di ñaanal sëñ Mountakha yàlla bàyyi ko fa ba ci kanam ak kanam ak sëñ Cheikh Jëmu Fall yàlla daraan lëndëm waaye fii tey ji fii ba 30 ba amul benn lëndëm lëndëm boo xam si ne am na fii ñu ngi koy rafet lu baax boo xam si ne biir daan jóge 30 da daan lëndëm trop ñuy dox di xaw a am unique waaye jamono ji wax dëgg yàlla loo xam si ne ñu ngi koy ñu ngi koy tiw tiwal ndax wax lu mel ni moom loolu rek sëñ bi loolu lañu si loolu la ñu mën a jàppale daal waaw lamb yi Touba si kanam def si Touba Lamsar moom ñu ngi koy rafetlu wax dëgg yàlla ku ñëwoon fa ne la si ginnaaw ak tey am na wuute macha allah koñ bi leen na nañ nañ nañ nañ nañ kontaan nañ si loor ak lëndëm bokk ci li yokk ñàkk kaaraange ci quartier yi bu njëkk Touba Lansar nii la meloon lëndëm kurus waaye léegi seen xel dal na ndax leeraay bi day yokk kaaraange gi. danaa lëndëm lool danaa lëndëm lool ba xam ne bu fi kenn jaar sax bu fi dëkku doo xam kan la fii ku fi jaar léegi bu dëkkee si comme da xam bu fi dëkku da nga xam fii daal léegi daal am na sécurité quoi am na sécurité kontaan nañ si baax daal nañ si bu baax a baax a baax waaw. waa liggéeyu Touba ci kanam bi moom dañ koy rafetlu. toujours nag ñu ngi koy rafetlu waaye bii nag dañ koo gën a rafetlu ndax boo xoolee jamono yi passé ñun ñu daan toog fii fii da daan lëndëm lool ba fii daanaka lu ne ñu moo ñu fi daan fekk des fois dañ daan toog fii ñu ñuy sànni xeer fii foo xool ba corniche ñëpp ngay seen mën naa ne mën ngaa taxaw fii di seen corniche bi ndax koñ bi leer na naan macha allah. liñ fi defagun ñu fi ne mooy waa maire bi defuñu defuñu ko fi ñoom liñ commencé nii buñ ci yemoon sax mu baax buñ ci yemoon képp bañ foo jàll feneen baax na. ndax liñ fi def kenn gisagul kenn ku leen tane kon bay bu ñu jàppale lu waaye di joxe jox leen ko lu waaye di dimbale dimbale leen ko lu koy ñaan ñaanal leen ndax li ñu gis daal ci kanam Touba ca kanam yàlla na ko suñu boroom yokk. ci wetu pénc mi ñi nga xam ne ñoo fi daan nekk guddi gi di jaay rawatina ñi jaay reer bu njëkk daawuñ guddee ndax lëndëm gi te ay torche lañu daan taal waaye léegi jaratu ko Touba ci kanam wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax a baax ndax man fii ma daan jaay rek daanaka boo ma saa jaay ba diisee jot rek ma fatu ci biir kër gi maire bee di jaay tere tamit noonu la daan def moom ab ampoule la jëndoon fii moom dëkk bi lëndëmoon na lool waaye nag ñu ngi sant Touba ci kanam bu baax a baax man daal la ñuy def moom yaa ngi nii di fo ñëpp a ngi nii man sama reer bii may jaay ne diisee bu ma saa jot rek ma daan fatu waaye nag lépp nag sëñ Touba amul morom daal ab ampoule laa jëndoon waaye ma nga ca kër ga tey sant nañ yàlla lool kay sant leen ñoo ngi ñaan sa boroom yal na leen yokk ca kanam waaw. ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci quartier Touba Lansar nee ñu kenn du leen jam naa ni dinañu gën a yokk seen pasteef ci liggéeyu Touba ca kanam rawatina ci jaayante yi. noo ngi fas yéeneen ànd laxasaayu takk suñu ndigg lépp loo xam ne lii ca Touba ca kanam la fas nañ ci yéeneen def lanu mën def ci lu ñu mënut ndax hôpital bi képp buñ ci yemoon doy na ak cant. mu tegaat ci lamp yi tegaat ci te leneen leneen leen dana ñëw kon nag na ngeen xam ne noonu waa Lansar daal sunu xol sedd na guy sunu itam dal na. waaw di wax ñi daan joxe rek képp ku daan joxe benn def ko muy ñaar ndax lii moom dafa kawee suñu jort. comme képp ku daan dagg 1000 francs na gën a góorgóor rek waaw ñu gën a jëm si kanam quoi. Touba Lansar di quartier bu Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba sanc ci ndigalul Serigne Abdoul Ahad Mbacké. nekkee ci penkum ndaamaatu bokk ci quartier yu mag yi nga xam ne dañoo nekkee ci biir dëkk bi lenn rek la ñuy ñaan jamono bi mooy tali boo xam ne dana ñëw ba ci quartier bi ndax amul benn tali bu fa ñëw waaye nag nee ñu lu ne mel rafet nañ ci njortu. ndax li fi indi hôpital bi indi fi làmp yi dana fi indi lépp.